yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokk julli asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu daayira Muxaddamatul Xidma moo am mbégte bu baax di leen nuyoo fii ci grande mosquée bu Touba ci jotaay am solo yi nga xamante ñu ngi koy amal ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha mu fi baaxoo fegoo ak kuréel yu am solo tey jii mu fegoo ci ak kuréel boo xamante ni ràññee nañ leen bu baax baax ci dëkk bi di waa Mafatihul Bichri muy kuréel bu am solo boo xam ne ñu ngi liggéeyal Serigne tubaa ndax li ëpp ci seenu yëngu uh, bésub àjjuma dañuy ñëw fii ci barabu sëñ bi di fi yëkkati xasida ñooñee nag lañ dalal fii tey ci barab boo xam ne miin nañ ko lool barab buñ mbokk ak ñoom boo xam ne dañ leen a nekkal fii ñu nekkal ñu feneen ñu am pas-pas ci li ñuy liggéey ba ñu tuddee Mafatihul Bichri Cheikh Fall moo war a wax seen kaddu Cheikh Cheikh Fall bi nga ñëwee ñu bokk dégluandoo waxtaan wa am solo yi nga xam ne daayira bi mu ngi koy amal fii muy itam yi fasanti ko ci waxtu wu ne euh, ginnaaw gi itam ñu bokk ndogoondo am na kàddu yi ngeen bëgg a yëkkati bi nga xam fekke ngeen jotaay bi yëpp incha allah kon Cheikh Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu yaak ñi wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyoo bu baax yëkkati suñuy kàddu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu boroom mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñëw tey jii ci jumaay tuuba suñ gisee jataay bi nga xam ne taxaw nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy topp danañ xam ne jataay bi du tey rek tey jii daara mu faatiwul bisiri juk ngir ñëw ñëw ci suñ bërëb àndandoo koog nag mbokki taali bi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ñenn jukki ci ànd ak sëñ Xaadim Sy mi nga xam ne moom moo yor socialu daara ji ak euh, sëñ Moustapha Diang mi nga xam ne moom moo bokk ci ñi yor conservatoire bi nga xam ne ñoom ñooy saytu njàngum daara ji feggoog Cheikh Abdou Samad bi nga xam ne lépp loo xam ne nii moom mooy finance daara ji moom moo ko yor feggoog tamit sëriñ Modou Ndiaye mi nga xam ne nii moom moo culture bi nga xam ne moom mooy daara ji national feggoog tamit ak Cheikh Abdou Fall moom it moo organisation nationale bi nga xam ne lépp lu daara ji taxaw ñuy ngees mu koy taxaw moom moo koy jiite. ànd ceeg sëñ Ousmane mbaay mi nga xam ne moom it moom moo jiite communication fii ci Touba euh, ca bokk ci bànqaas yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, national bi yëpp. kon suñ gisee jataay bii dañu xam ne mel ne kon daara ji li ëpp ci ay membre am wala ci ëpp ci kilifa yi la andi loolu nag suñ ko suñ ko gisee tey jii day mel ne ñëw suñ bërëb ak ñëw ci fi nga xam ne moom lañ gis muy daayira Muxaddamatul Xidma xam ne ànd bi ñu nag ñoom yàgg na lool ku ne xam na ne bañ dalee taxawal lii ba léegi saa su ne ñu ngi koy ànd ak ñoom. day mel ne sax dañuy wax ne ñaari mbooloo yi dañoo jaxasoo jaxasoo goo xam ne heure boo demee ci mbooloo ma faatul bisiri da nga ko fekk ñu bokk ci Muxaddamatul Xidma soo dikkee ci Muxaddamatul Xidma da nga fi fekk ñu bokk ci ma faatul bisiri te lépp loolu li ko waral rek mooy ànd bu rafet ak ànd liggéeyam Sëñ Tuubaa kenn ku ne nekk foo xam ne fa nga nekk ci matt goo xam ne moom ngay liggéeyal sëriñ bi nga nekk ca féete ca loolo ñoom nag ñu féete ci féete bu am solo boo xam ne murit yëpp lañ ko féeteel muy fii ci jumaay Tuuba ndax damay wax ne kenn ku ne ci ñoom liñ nekk mooy kenn ku ne am nga wërteefu taxawaay biñ am yow nga am taxawaay boobu kon suñ la fa féetee suñ ñu fa féetee kon day mel ne kenn murit bu ne amal na leen njukkal amal na sant waaye nag ñu am ay doxin yu am solo yoo xam ne dolli nañ ko ci muy ginnaaw bi ñuy taxaw jumaa ji di ko saytu di def lépp loo xamee nii moom mooy war may jumaa ji ñu yor ko waaye nag suñu dikkee ba ji koor gi ñu am liggéey yu am solo yoo xam ne ku ne gis na ko yaakaar naa àdduna bépp ne bàyyi nañ ko xel gis nañ ko muy waxtaan yi nga xam ne moom lañ fay taxawu ngir ñu dëkk ci dëkk bi ak ñi nga xam ne bokk ci yoon wi ak ñeneen gën a xam diine seen diine gën a fàttalikuwaat li nga xam ne nii moom mooy liggéey sëriñ bi ñu koy wane saa su ne waaye nag am lu am solo luñ ciy def tamit muy ndogo yi nga xam ne moom la def muy loo xam ne maa ngi koy wax léegi ci biir di wax ne ku koy dégg ca ñëwagoo fi doo xam dëgg-dëgg ni mu demee ndax mbir la moo xam ne yaakaar naa solo su ko ëpp kaw ku ko féete kaw amut ndax it ku dikk ba gis niñ ko organiser ci programme yi nga xam ne moom la ñuy def nga mën fee ju nekk ba jóge fi lenn loo xam ne moom la sëriñ bi di bañ doo ko gis lenn loo xam ne moom la diine ji bañ doo ko gis mën nga fay nekk ba jóge fi góor ñi duñ gis jigéen ñi jigéen ñi duñ gis góor ñi te it kenn ku ne la nga war ak la war ak la war a nekk yaa nga ca kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal ci seen jëwriñ jaarale ko ci sëñ mi nga xam ne moom mooy kilifa liggéey bi ba wàcc ba ci membre yëpp day mel ne dañoo mënta lim waaye soo doon lim doo matalu tamit mën nga fee yàgg waaye ñi ngi ziar mbooleem nag mbokki bi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daayira bi di euh, wax ne euh, jëwriñ sëriñ Xaadim mi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi Euh, Mafatil Bichri yëpp xam ne daanaka kon niñ ko xamee rek muy Mafatil Bichri ni mu yaatoo xam ne fépp ci Sénégal am na fa ay bànqaas yoo xam ne moo ko fa nekk. waaye sëñ Xaadim moom xam ne moom moo jiite liggéey bi yëpp léegi nii rek bi ñuy dugg ci ndogu si mi ngi déggee dégganteeg ñun daa féete soowu waaye su fi nekkoon dana fekk dana bokk ci jotaay bi ñu koy teewee. kon loolu daal tànk yi mooy tànk yi nemmiku tànk yi dox mbokk tànk yi dox tamit mbokkum taalibe ak mbokkum taalibe ak liñ bokk ca xam ne fi ngeen nekk da ngeen faa nekk waaye ñun ñëpp ngeen fa nekkal ñu ittee nag lancé appel mboolem murid yi ndax liggéey bi kenn ku ne jàpp nañ ne war ngaa ñëw teg ci sa bët ndax mel na ne nit ñi am nañ ci ku kumpale am nañ ci woo xam ne dëgg-dëgg yaakaar na ne am na kump koo xam ne am na ci doomu aadama ndax ku fi dikk da nga am leneen loo yëg da nga xam ne sëriñ bi moom la mu ci taxoon mu sanc dëkk bi loolu moom waa dëkk bi ñu ngi fi ñi nga xam ne ñoom la tàggat ñu nekk ci dëkk bi ñi ngi ci loola mooy liggéey ak jaamu yàlla suñ gisee ne suñ defee ndogu yii te lenn loo xam ne nii jàpp nañ ne moom moo gën a kawe lu dut doomu aadama bu woor ba ngoon nga yëkkati benn tàndarma jox ko la nga ca am ca tuyaaba kenn xamu ko suñ borom rek moo xam kon daal ñi ziar bu baax a baax bërëb bi nag di bërëb boo xam ne mafaadu bi si dañ ci ay taxawaay yu bëree bëri ndax suñ gisee fii ci fajarog jumaa ji ci barabu ku tedd gi kuréel gi ñoom ñoo fi taxaw di ko fi jàng heure buñ jullee fajar ba pare ba ci fajarug tey ji rek def nañ ko sa duñ dikkee tamit ànd ko ak muxadimatul xidma kon lépp daa jaxasoo day mel ni foo dem rek day am lu leen lu loo xam ne day mel ne liggéey bi day benn ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di jéggalu ci kàddu yi di xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen comme nañ ko doon àndee di leen jot li nuyoo waa daara ji yëpp nag xam ne ñii dañoo ñëw rek ñoom ñoo war a ñëw waaye jëmmi daara ji ñëpp ñoo am mbégte ak sofoo li nga xam ne moom mooy daara bi ñu ngi ziar bu baax di lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yéen a ngi jot lii nuyoo waa daara ji yëpp ñu ngi koy nangu ak ñaari loxo di leen delloowaat loxo boo xam ne dañ leen di tàllal loxo kóllëre li nga xam ne moom la ñu yàlla boole ci këpparu Serigne Touba ñu mën ñu ko teyal euh, te lépp luñ ci bokk liggéeyandoo rek Serigne Touba nangul ñu ko euh, te laqal ñu ko fa yàq yëgul incha allah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf boo yeneen jamono incha allah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu